Fi jamono tollu mo waral ñu yëkëti suñuy kaddu ci jamono ji baxo wuñu ko dafa di nak fi réew mi tollu képp ku dëkk ci réew mi tolluwaayu réew mi war na laa itteel loolu moo waral ñu yëkkati suñuy kaddu réew mi nag fii mu toll ak li fi suñu borom def ci ay xéewal yu mën a yu mën a tàggale ak waa réew mi ci ab coono ba noppi lu fi waroon a yomb lu nekk ñu jafeel ko kon ku mu yomb fi yow bu mu tax nga jàpp ne réew mi neex na lii fi xew nag te muy fomm ay élection ak di soppi sarti réew mi képp ku ci noppi war ngaa leeral lu tax waxoo ci kilifa diine yi nag kenn ëpp leen ci responsabilité ndax population bi li ëpp ci ñoom li ëpp ci ñoom lañuy déglu kon setan waru leen te mbir mi bépp kilifa diine bu ci doxul ay jéego bis bu pënd bi wuree dana la xañ lu bari sa digg ak population bi kilifa nag bu ñuy fitnaal ak njabootam ci am pénc buleen leen naree wàllu na leen fekk ca pénc ma waaye wax bu ñu ko biralee ku koy tontu waroo koo yalu kon nañuy fàttali nit ñi jikkoy naafeq yi ngir ñu mën koy moytu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne màndargam naafeq ñett la bi ci jëkk mooy koo xam ne loo wax du doon dëgg bu ñaareel bi bu ñu la joxee ab rendez bu ñu bu la joxee rendez-vous faussé ko bi ko ñetteel mooy boo ko wóoloo mu war la réew mi nag ñépp a ko bokk kon nañu yërëmante tey dimbalante ndax borom bi subhaanahu wa taala nee na taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan fii mu ne nag ñi noonoo dafa mel ne ñoo ëpp ñuy dimbalante te fii réew mi toll coow li bari xëccoo bi bari wor yi bari wax muy dañ bari jikko yu bari tàmbalee yàqu loolu tax na ku fi am njàqare ku ne sa xel dellu ca mag ñi wuy ci seen boroom sëriñ sii ci réew mi nag koo ci xam ne say taalibe àdduna ak àllaaxira lañu ànd yow war nga leen a wan la nga ma ne fii ci àdduna ndax alakhiré ñëwagul ta mbooleem ñi fi ne mboolem ñi fi jaxaso ak ñi jité réew mi war nañu leen di firil waxi borom bi subhanahu wa taala moy wax ne ya amanu lima taquluna ma la tafxaluun kabura maqtan hindallahi an taqulu ma la tafxaluun tali sabab yengu yengu ci réew mi ba ay bakkan di ci rot wax ju tebbi ku da ci bokku te fitna baaxul te réew mii bari nañu fi seeni kàddu war a mën a fekk fitna waaye dañu leen di noppiloo te aw fit aku njàmbaar lu ci ne donn ko yombul waaye bu ñu fàtte wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina salamu minkum xaasatan waxlamu anna allaha sadidul iqaab wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu